ci weer wi ñaanal xalif généro yi na ci biir réew mi sëriñ Babacar Sy Mouhamadul Mansour xalif général des Tidiane nu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ndokkeel ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér ñaan ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke maamam Cheikh Seydil Hadji Malick mm. ba mu jiite jumaa ji nuyu sëriñ Maodo Sy Abdoul Aziz sunu sëriñ sëriñ Babacar Abdoul Aziz sëriñ Mansour Abdoul Aziz ñoom ñëpp nu leen di ndokkeel ñaanal sëriñ mun Mountakha Mbacké ak mbooleem xalif généraux yi na ci biir réew mi ñaanal bu baax a baax njiitu réew mi ñaanal borom kër gi président Youssou nduur alaaj Pape nu ngi lay nuyu di nuyu <coughs> sunu jigéen ñi ñoom itam ñu ngi leen di ndokkeel Mouhamed Ndiaye nu ngi leen nuyu di am mbégte bu baax a baax a baax oustaz Assane Seck nu mm. ngi koy nuyu di ko ndokkeel di boroom xam-xam bu mag oustaz Modou Fall mm. di borom xam-xam bu mag a mag ñoom itam nu ngi leen di ndokkeel waaye laaj Pape sunu sëriñ nag dafa ñëw teewi ni nga ko waxee xam nga lii mbaax la sëriñ Cheikh Omar Sy kuy baayam Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Jamil Seydi Jamil sëriñ Babacar Sy ko jur sëriñ Babacar Sy jël Xaaji Malick baayam mooy taawu sëriñ Babacar Sy moo ne fii di chance waa Ndakaaru nag mooy Seydi Mouhamadul Moustapha Jamil mooy lu rafet dafa baayam dafa taaru woon bari xam-xam wilaay gi jéggi dayoo doomam a teew nii. noo ko waxee addas addasu a waaw addam mu dasaasa. addam mu dasaasa. loolu dafa nekk. macha allah <laughs> déret dafay rogalaat. maay booy laay doosi addam mu dasaasa. baayam Seydi Jamil laa waxoon ne ko Jamilu xaalin. kaza Jamilu tasmiyatin. xaazal eh. jamaala bi madmuunin wa ashkaali. Eh. moom Seydi Mouhamadul Moustapha. sëriñ bi nu ngi lay nuyu si. nu ngi lay ndokkeel. seen maamay garab gi. waaye yéen yéen ay car yi te garab nag car boo ca laal borom yëg ko dëgg la de Seydil Xaaji Maali mm-hmm. mooy garab gi mm-hmm. waaye njabootam gii ñooy car yi la ca maam sëtu koy la ca maam sëtu koy jël uh-huh. te laaj pap garab nag car boo ca laal mm-hmm. borom yëg ko uh-huh. kon sëriñ bi nu ngi lay nuyu uh-huh. mu ànd ak jëmm ji kii ah. fii la ne Baay Abdu waaye Tiwaawoon la dëkk wallaahi baayam Baay Alxaaji Mbay góor gi doon jottali Alxaaji Abdul Aziz Si Dabaax baayam alaaji Mansour yaral ko boppam defal ko lépp dem baayam nag nekkoon ci kër Seydil Hadji Malick amul fenn frontière mhm. kër Serigne kër Sy kërama kër alxaaji Mouhamadul Habib kërama kër Cheikh alxaaji Abdul Aziz Dabaax kërama kër alxaaji Mansour kërama mhm. kon Abdul Aziz nu ngi lay nuyu eh. sa teewaay bii mooy teewaay bay alaaji Mansour Mbay mhm. mu baax mi nga xam ni boo ne ko jàkk moom sa xel dem ci mbaax waaye nga tafu ci wetam rek ba fu mu dematul yaa fay dem mu laay sa taxawaay ci kër gi sa teewaay bii foor na lool yal na yàlla yokk la dëgëral allahumma amiin alaaji Paap waaw ñuy wooteel yàlla nga jël sa dërëm dugal ca ku fa julli am ca yiw di nga ca am wallaahi rawatina bu gàmm jotee nga départi a di xool jumaa ja nga ni aa ah, fii de sama xaalis dugg na ci mm-hmm. waaye ñuy laaj nga ni pat joxe ba jumaa ji ak taar bu amul fenn nga koy xool te amoon loo ci war a mën a def te defoo ca di nga am ker sax Pape. ba pare eh, eh, yéwén weesuwul ñu ne ku ne mën na ci barkeelu ndax benn benn benn taalibe rek defaroon na liggéey bi yëpp. mais alaaji Pape benn taalibe rek. defaroon na liggéey bi mais ñu ne ci Sénégalais yëpp profito na àddina bi yëpp profito ci yiw gi. na àddina yëpp profito ci barkeel. ci ci kune gi ku ne barkeelu ku ne dugal ci loxoom. wallaahi kenn bañ a xeeb. kenn ku ne yor na téléphone am sa téléphone am na xaalis. wallaahi Wave baa ngi fi. wallaahi Orange Money baa ngi fi. wallaahi ñu yore ñu yore lu bari bëgg a dugg. am na am na numéro compte bancaire boo ko war a dugal. Mhm. am na fu ñu la war a joxañ nga dem dugal ko fa. Mhm. am na ñoo xam ne ñu ngi def mbaax te kenn du yëg. waaye laaj Pape. Mhm. xam nga tabax finition ci gën a métti. dëgg la dañoo toll ci finition war a ubbi jumaa ji. wallaahi. rik taalibe yi nu gaaw. finition daa alaaj Paap eh. danoo war a gaaw. ndax kii sañcoon jumaa ji tracé ko. Mhm. Mouhamed ibnu Abdullahi ibnu Mouhamed Yaabaan Ajakini xam nga lu mu ko wax. Mhm. dañu bi mu fi jugee julli juróom mu ngi koy jooy. Mhm. bi mu fi jugee salaatul wusta a ngi koy jooy. bi fi jugee branche xam-xam yépp a koy jooy. mooy Seydil Hadji Malick salaamun ala cheikhin tadammanahu ramsu jamilil muhayya dunahu fil bay shamsu imamun yazallu darsu yëpp kii li faqdihi wa tashtaquhu lwusta faraiduhu xamsu mu ni la amri la in amsayta bi lahdi thawiya wa rudda alayka alayka turbu wan sarafal insu jàmbaar ja Cheikh Seydil Hadji Malick kooku nag jumaa ji nuy laajal moo ko moo ko tracé ah, Seydil Hadji Malick alaaji Mansour ne dund naag sama baay 22 ans. ma koo gis mu tardé julli julli julli farata. mu ni xanaa benn yoon la ko kàbbaru xarmal rëcc. dañuy jàngale ñu nekk ca sarxaaba mu jékki-jékki na Mansour waxtu wi jot na ma ne ko nga ah koy bàyyi mu départ fekk imaam ne allahu akbar bay rukkooa alaaji Malick tardé kàbbaru xarmal nee na 22 ans musul tardé julli juma ca mbooloo ma kooku la ñuy laajal xaalis jumaam ji dañoo nekk ca finition. tey jii ba nu fee jóge yàlla nañu am. te milliard bi taxaw 350 millions. déet man maa ngi ci milliard. milliard aw jërëjëf. milliard Seydi Malick jar na ko jërëjëf maa ngi ci milliard. jërëjëf Diallo kii finition koy bëgg a rey Mame Omar Ndiaye. oustaz oustaz Modou Fall finition koy bëgg a rey. waaw moom ci finition la nga daaraam su ndaw sële. waaw lu moom. waaw daaraam su tuuti soos muy tabax. ca Kébémer te moom finition am ay benn vingt millions boo ko joxee mu. mu àggale waaw wala 35 kon tey objectif un milliard. léegi bu ñu amee nag benn vingt rek. waaw wala benn quinze millions bu ñu ko mën a jox mu finition rek. mu jox ko mu finition rek. mais te daal bëgg nañu au moins. objectif un milliard. un milliard maam euh, Omar Ndiaye. Euh. taxawaayam ci kër maamam Seydil Hadji Malick. macha allah mais gërëm président Makhtar Cissé. Euh. mi nga xam ni xalifa bi waa jamaatul nuur Mhm. dañ ko jiital mu am ci taxawaay bu mag a mag a mag mhm. Seydi Mouhamed ministre Makhtar Cissé wallaahi Makhtar Cissé nga xam ne alaaji Malick moom da ko gënal lu mu am mhm. léppam Seydil Hadji Malick la moom it nu ko ci ndokeel di ndokkeel waa jamaa yëpp alaaji baab jamaa ci buur moom daal ma bàyyi la après ñu dellusiwaat mu ngoog